ayca jërë ngeen jëf mbokk yi suivre solution TV solution info mbégte la ñuy am ñëwaat nag comme ni ñu ko baaxoo di defee say su nekk rek altine bu jot ci l' émission des émissions ñu ngi jégalu nag bu baax a baax ci altine bee ñu génn ay problème ak yitte rek moo ñu tere woon ñëw mais say su nekk rek suñu xel day nekk ci askan wi nga xamante ne ni ñoo ñuy bàyyi xel say su nekk nuyu nag waa Cees kay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm ñaanal ko suñu sëriñ si di mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké yàlla suñ borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram te koy ñanal mboolem xaalif yi ci biir réew mi yëpp euh, waa diaspora bi tam ñu ngi leen di nuyu di leen di bàyyi xel ñëwaat nañu beneen yoon ci l' des émissions ñu fas yéene ci ànd ak Alaaji Sanjogu Meng ñu bàyyi ko mu nuyoo ak internet ñu si fa bu ko defee ñu xuus ci suñu waxtaan Alaaji maa ngi lay nuyu. ma jigéen ñi ngi lay fay <coughs> di la ziar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow. Eh, di dem ba Touba nuyu xam général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaan mu yàgg fi ànd ak waaye ñu ngi nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu tànd ak nuyu sëriñ xaadim na ca kër ga ak njaboot ga yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm nuyu nañ sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhlaq nuyu kilifa diine yi yeewoo ci biir réew mi di nuyu sénégalais yi nekk ci biir réew mi ñi ne bitim réew di am ci ñëpp mbégte kontaan seen taxawaay rafet na ci réew mi ñu ngi leen di nuyu mais di nuyu aussi tamit suñu mbokk gambien yi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi ñuy teewlu di ñu bàyyi xel ñu ngi leen di ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci ñoom waaw di kontaan bu baax a baax altine ji di jégglu ci euh, leen di passé xibaar yee taxawutoon waaw xam nga da doon daw ko moo tax macha allah macha allah jërëjëf meg nga euh, di jégaluwaat bu baax di nuyu nag Baye Assane Mesere mi nga xam ne saay su nekk rek moo ñuy teg pression ci émission bi lay ñu ngi koy diaar bu baax a baax tey nag daañu ànd ak yéen ci waxtaan. le euh, général bi di Abdourahmane Tiani bu Niger moom nag euh, am na waxtaan bu bu sekk ak euh, yenn ci presse yi nekk foofu noonu jëm ci mbirum Sénégal moom nag àdduna jëm ci président de la République du Sénégal ngir rek moom xalaatam moo nekkoon Mm, daal di briguer troisième mandat waaye nag neen volonté populaire bi nga xamante ne ni sénégalais yi am nañ ko moo waral mu dellu ginnaaw ci mbir mi ne mais nekkoon na loo xamante ne ni lu mu souhaité woon la daañu ci ñëw léegi léegi su ko defee ñu teg digtal leen ko ngeen suivre ko ji indi ci xalaatam. buñ ca noppee Abdou Karim na euh, nekk porte parole bu gouvernement bi moom nag euh, ginnaaw bi président Macky Sall amale ak euh, waxtaan ci yenn site international yi moom nag nee na bu ñu deful ndànk rek ak déggoo bu amul dana am yeneen force yoo xamante ne nii daañuy jël li nga xamante ne ni moo di nguur gi ba Sénégal yi nag ñenn ci askan wi ñoom ñi ngi koy dendale ak armée bu Sénégal waaye nag moom Abdou Karim Fofana nee nee na Sénégal pétrole bi mu am ak gaz bi nee na suñu moytuwul ak déggoo bi ñuy ñàkk wax ne su amul ñi nga xamante ne ni ay yeneen force lañ ñoo xam ne dañu teg bët euh, pétrole ak gaz bi am ci biir Sénégal ñoom ñoo daal di fukkat ci nguur gi léegi léegi daal ñu ci ñëw jeexalee ko ak Madiambal Diagne ab audiom nag euh, bu ñu jàpp ni dafa fuité mi ngi ci internet bi ji wëndeelu. yëkkati na ay kàddu jëm ci mbirum report bi nga xamante ne ni boobu ba tey ñi ngi koy waxtaanee nee na nag duñu seetaan benn yoon ku mel ni Cheikh Tidiane Dieye ak ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci parti bi leen di Pastef ñu ànd di xeex Sénégal bëgga a taal réew mi ñu leen di bàyyi ñu bokk ci les élections nee na loolu yenn wul moono ñu teg léegi ojo bi ngeen déglu ko alaaji daal di ci indi xalaatam ñu xuus nag ak ki nga xamante ne ni moo di euh, général Abdourahmane Tiani kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci Sénégal rawatina nag suñu président bi di Macky Sall déglu kàddu yi dellu si incha allah. Macky voulait un troisième mandat. Le peuple sénégalais avait montré une fois de plus sa maturité politique pour dire qu'il n'y aura pas de troisième mandat. nous n'avons pas la mémoire courte. Mm Même si nous ne sommes pas au Sénégal, nous suivons l'évolution. Face à l'évidence, Macky Sall a abandonné cette velléité de s'octroyer un troisième mandat et à contre-cœur permis que les listes soient ouvertes, permis que des candidats soient retenus et fixer les élections pour quand

sans velléité quelconque mm -hmm. d'abuser ou de profiter. Libre circulation mm des personnes et des biens. Par rapport à cette organisation, quelles perspectives s'offrent vraiment à nous ñëw jaajëfal ko moom moo Modou Diouf ak Abdou Top alaaji dégg nga kàddu yi nga xam ne général bi yëkkati na ko nee na nekk ñu biir Sénégal nag waaye ñi ngi wëy di topp évolution information yi nga xamante ne ni moo ngi tukkee ci biir réew mi nee na volonté bi population bi amoon moo taxoon président bi teggi tànkam ci li nga xamante ne ni moo di troisième mandat moo ñu war moo ñu yóbbee tey ci nii ba ñuy wax waxu report bi ñu waroon amal vingt cinq bi ci ay kàddu yu mu yëkkati moom général waaw macha allah muy lu am solo général Tiania ca Niger nga xam ni euh, euh, bi mu toogee yàggul nga xam ni moom mii tey euh, boo arriéré tuuti rek armée Sénégal a ngi fi doon waaj waa CEDEAO ngir dem lijjanti ji problème ne dañ fay jëlee ki nga xam ni mooy général Tiani indiwaat ki nga xam ni moom lay wax Basum Basum ma fa nekkoon euh, loolu di la won rek àddina xam nga parensaay lii li tax mu garaaw mooy taxawaayu président Macky Sall mooy justifier nekk ni ñii ci nguur maanaam moo tax ñoom it dañ koy dañ ci sauter pour wane ni ñoom bu ñu nekkee ci nguur yi c'est parce que civil yi ci seen jëmmi bopp ñoo nangootu la wàcc nguur gi maanaam nangootuñoo topp jeu bi nga xamante ne bi moom mooy jeu démocratique bi nga xam moom lañ war a teg maanaam dañu koy jalgati mm-hmm. pour gën a continuer di reste ci nguur ñoom dañuy am mbégte parce que président Macky Sall dafa gën a dëgëral ñi seen toogin comprendre parce que ñii bi ngay ŋàññ seen toogin ñoom dañ la wax ne ñi nga xamante ni bi ñooy civil yi ñooy def coup d'état constitutionnel di abuser ci nguur gi di dexale yëf yi ñu leen dex di changer constitution bi muy delluwaat ci seeni mbir ba dem askan wi dootu ko mën a toléré loolu mooy sabab ñoom ñuy amal ay coup ñoom loolu lañ wax mm. léegi bu ñu gisee ku mel ni Macky Sall fi mu toll nii li nga xam ni moom la def ñoom it dañuy sauter ci mbir yooyu pour gën a wan seeni peuple ne leen gis ngeen li ñu def nii lii moo ko waral. toog ci nguur lànk ne bu ñu demee ba nga xamante ni bi tey mm-hmm. soldaar yi ñu ngi yedd. parce que boo fàttali ko ay Tall Sall daf ne woon coup yi dafa doy mi ngi bëgg a soof. dafa bëri. yaa ngi dégg. ci jamono jooju tax xamuñu ni coup yi dafa am yu koy indi parce que Niger bi bi ñu amalee coup askan wa dañoo génn daal tàccu ñi nga xamante ni bi ñoom la ñuy wax. soldaar yi civil ya nekkoon fa jël li nga xam ne mooy seen uranium France di ca bànneexu di ci am énergie ñoom dëkk ba rëndam kurus seen énergie di jóge ca Nigéria mu nekk ci jafe-jafe yoo xamante ni bi jafe-jafe yu doy waat te uranium ba nga xamante ni bi tey moom lañ am muy leeral France France di ko jëndee prix bu baax boo xamante ni bii ñemewu koo jëndee fenn ci àddina bi parce que dégg naa ci nit ñu expliquer ne uranium bu fekkente ni bii ca Canada xaw ma ña ngi koy jëndee plus de cent trente mille je ne pas te ñu ngi ko doon jëndee fële ca Niger quatre mille yu mel noonu nag mooy li nga xamante ni bii moo tardeel Afrique mm-hmm. looloo tax ñu fuqar ci ko français siisu ne duñu génn dëkk ba. mu tëj ñu ambassade ba dara dootu fa dugg kuppe leen courant wiccax loxo France tey jii ñoom Burkina Mali créé nañ seen mbootaayu bopp ba noppi génn ci CEDEAO am nañ raison parce que ki leen di dëggalal mbir mi mooy doxalin yi nga xam ne moom nga gis fii ci Sénégal ñu dem ba war a dem élection ñu créer ay mbir daal di ne élection mënatu la ne c'est parce que crise dafa am crise boo xam ne bii ki koy wax doo ko gis waaye sénégalais yëpp moom li ñu gis mooy campagne bi war a ñëw mm-hmm. c'est parce que dem nga ba yëg ni danger am na ci yow c'est parce que ka nga doon jéem a galgal moom jiitu na la doxalee na neneen noo xamante ne bi bokkutoon ci say calcul nga yëg ni bu la daanu it taqateeram daan la loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li garaaw donc nag ñuy wëlbatiku encore une fois di wax ni Sénégal vitrine la woon quoi nekkoon dëkk boo xamante ni dañ ko doon naw ci wàllu démocratie mm. dañ ko doon léegi boo ko tut dëkk boo xam ne dañ koo naw ci diggante dañ ko doon ak dañ koy naw mhm. benn mbir dong ko indi muy ajandinaa élection yi léegi nga nekk dëkk boo xam ne dañ la doon mel ni lu yàgg la et pourtant à laataan ngay def discours boobu rek dañ naan naw nañ ko ci wàllu démocratie kon benn baat rek nga def jéggi nga loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li garaaw tey boo demee ba ñi nga xamante ni bi tey bërki démboo njaay yaa ngi leen doon ŋàññ tey ñu ne la yow ñoo la tane parce que lii ngeen di def moo tax ñun ñu nekk kon donc jox nga leen raison bu doon tey da ngeen doon kii gañe nañ la parce que dëggal nga li war a tax ñoom ñu nekk ci nguur tey bu ñëwee nañu delloo soldats yi ci caserne yi mooy li war mooy li nga xam ne moom la bépp dëkk démocratie na soldats yi nekk ci caserne yi waaye tey bu ñu ba soldats yooyu tey nekk ci palais yi. nga doxalee noo xamante bi ci la ñuy sukkandiku ñoom ngir gën a dëgër seen toogin ci palais là problème am na donc loolu mooy li nga xamante ni moom lañuy wax en tout cas euh, li mu wax kenn du ko dindi parce que àddina bi boo jàppee ni Sénégal ak fii dëkk bi kii la rek village planétaire la rek benn village rek àddina bi yëpp benn village dëkk yëpp nekkuñu Niger waaye xam nañ la fa xew waa Niger tamit nekkuñu Sénégal waaye xam nañ li fi xew dara umpu leen Sénégal waaye xam nañ li xew. xam nañ li fi xew. loolu mooy li am solo. Mm. doy na wax en tout cas euh, compliqué na ci mbirum foqat ci nguur googu sax si lañuy ñuy jëm ak yéen ndax euh, président Macky Sall def na ab sortie xam le ne ñun ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci biir réew mi nekk ay acteurs politiques suñu déggoowul ci suñu biir ay yeneen i force daañu euh, nangu nguur gi porte parole bi moom Abdou Karim Fofana indi na ci ay leeral selon lui nee moom nag jàpp na ni pétrole xool bi ñu am ak gaz bi moom la ñenn force yi daal di teg gët moo tax su déggoo amul rek daañu ñëw foqat ci loolu ndax li nga xamante ne ni am nañ ko ci ay ressources ñu dem déglu ko dellusiwaat moom Abdou Karim Fofana. Oui, mais nous savons depuis le départ, depuis qu'il y a du pétrole et du gaz, que le Sénégal euh, est la cible de beaucoup d'organisations terroristes et djihadistes. Nous le savons, euh, la ceinture de feu que nous avons, tous nos voisins ont été attaqués, ont été un peu malmenés à l'intérieur de leur pays, leurs institutions, la République, la stabilité, et le Sénégal résiste depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui nous a permis de résister C'est parce que nous avons un État organisé, une scène politique stable avec des alternances. Vous voyez, euh, les dernières élections locales, l'opposition a gagné beaucoup de grandes villes, le pouvoir a maintenu beaucoup de, de, de communes ou de collectivités rurales à l'intérieur du pays. Aux élections législatives, nous avons un Parlement qui est équilibré. Donc la démocratie, la vie électorale, elle marche. Nous avons euh, plus de 500 médias qui fonctionnent tous les jours. Il n'y en a qu'un seul qui est sanctionné pour appel à l'insurrection ou à la violence. Donc euh, la liberté d'expression est une réalité. Cependant, euh, si euh, nous, sur la scène politique, nous ne nous, nous, entendons pas sur la métaphore de l'ordinateur qui a bugué notre démocratie pour laquelle il y a des problèmes d'entente entre institutions, eh ben, ça va faciliter à ceux qui sont hors du Sénégal, qui rêvent de mettre la main sur notre pétrole, notre gaz ou qui rêvent d'un Sénégal qui s'embrase comme d'autres pays. Et c'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a bien fait de rappeler que si nous ne nous entendons pas sur l'essentiel, c'est-à-dire les règles du jeu politique, les modalités de pacification de l'espace public, eh ben, d'autres euh, organisations qui ont envie de voir le Sénégal être compté dans la liste des pays non démocratiques ou qui, qui ont des difficultés parce qu'ils ont subi des invasions terroristes ou djihadistes. ay Aïcha mi ngi noonu ji man parfois euh, damay am problème euh, di wax ne est-ce que président bi ak ñi nga xamante ne ni ñoo di ay nitam ay déggoo dina am ci ñoom parce que moment bi sénégalais yi ginnaaw sorti Macky Sall bi euh, di wax ne peut-être bi muy wax ne na moom armée bi la jàpp ne ñoom ñoo jël ñoom ñoo war a jël nguur gi su déggoo amul tey Abdou foofa Fofana moom jàpp na ni peut-être ay terroriste ay ñoo xamante ne nii nekkuñu sax ci biir dëkk bi teg gët Sénégal bu ñu deful ndànk ñoom ñoo nar a jël nguur gi waaw interprète gouvernement interprète gouvernement bi parce que président daa wax ba pare mu ñëw di waxaat ci li mu waxoon. parce que defe naa ne ma defe ne porte parole moom mooy li ko kii bi war a wax nga dem wax ko waaye buñ la ko njëkkee wax kañ ngaa war a wut leneen loo xamante ni moom ngay wax waaw mais sinon rek boo ñëwaatee di wax kon da ngay da ngay ñuy leeralaatal li nga xam ne moom la wax mais leneen li am pris de cinq cent médias la wax am na fi. xëy na peut-être da boole site. non ma lu ñu reconnaître parce que buy wax moom dafa war a wax ci lu ñu reconnaître est-ce que reconnaître nañ plus de cinq cent médias. <laughs> cinq cent média bari na de. bëri <laughs> cent mu ne benn rek lañ ci. mu ne benn rek lañ ci tëj. parce que moom mooy appelé à l'insurrection. waaw mais moom cinq cent médias yooyu chiffres yooyu mu joxe dafay wax nii rek pour wax sànni wala dafa am ay chiffres yu réel yoo xamante ni bii tey euh, moom lay kii. en tout cas loolu man jaaxal na ma 500 médias c'est trop 500. même même site internet yeeg site. waaw mais site internet mais ñu reconnaître trop. loolu moom war nañ ci xoolaat seet ba xam waxam ji wér na wala wérul waaye loolu daal man wax dëgg fa yàlla bari na ci man lool lool lool 500 médias yooyu. Hmm. waaw xam ñoom ñu ngi joxe aide à la presse kon 500 médias la ñuy jox aide à la presse. loolu jar naa càmbar waaw loolu lu ñu war jar a càmbar bon léegi nag bu ñu ñëwee ci euh, li nga xamante ni bii moom la wax ci lu jëm ci wàllu euh, ne am nañ gaz pétrole et cetera euh, nguur gi am na kii yoo xamante ni bii wër nañu maanaam nee na li ñu wër maanaam euh, euh, comme lu ci mel ni ay Mali ay et cetera dëkk yi nga xamante ni terrorisme fa sous-région foofu la sukkandiku quoi am président moom euh, joxuñut maanaam dafa junj dafa junj rek daf ne bu ñu defut ndànk ay force seul nekkuñu seul ñun politiciens yi ci mbir mi mm. bu ñu defut ndànk nag yeneen ki yu gën a organisé danañ ñëw fuqar ci yëf yi kon dialogue bi dañoo war a dialoguer balaa lu mel noonu di am xam nga dialogue bii nag dafa wuteeg dialogue bële bi mu doon woote bële dafa toogoon Assane Gueye laaj ko mu fëgg dënam ne ku gedd sa yaay ñëw toog ci dialogue bi ne njekk na ngeen ma ñaan njekk ci njekk bii dafa mel ni moom euh, daf ne gars yi ñëw leen balaa réew mi boy dafa mel ni loolu lay woote ko ci ni mu ko waxee ni mu ko waxee nag dégg-dégg yi bari na mais nit ñi am na ci yeneen gis-gis hmm. Fafana ñëw na ngir jubbanti ginnaaw bi nit ñi amee fu ñu jëmale wax ci parce que bi mu waxee Mimi Touré Habib Sy bi ñu génnee dañ ne dafa bëgg a def comme la Gabon def maanaam coup d'état boo xamante ni bi à la boo xamante ni bi état bi da ci baara yogoo ak armée loolu mooy li nga xam ni noonu la ko opposition bi faram fàccee moom mu ñëw ne waxut loolu li mu wax mooy yeneen force yoo xamante ni bii terroriste ak et cetera moom noonu loo ñëw pour jubbanti wax ji mais ki wax moom dafa wax sànni ki wax nag wax ji mu wax sànni mën na nekk ni mu am lu muy njort wala lu mu yëg ba tax mu wax sànni xam nga boo seetee depuis quelque temps booy dañuy partager ci réseaux sociaux yi ay Eh, Ibrahima trawale ay eh, Asimu comprendre nga di wane tamit ay eh, général Abdourahmane Tiani bi comprendre nga naan jàmbaar yaa ngi et cetera loolu nag influence mën na def influence ci li nga xamante ni bi mooy armée bi peut-être loolu nga xam ni moom la booy def dañu bëgg a pour wane armée ne leen ñun daal pare nañ sonn nañ ci waaj léegi nag waaj ci jëmmi boppam Euh, le fait que mu daadee wax wax ji sànni ko bi mu waxee wax ji sànni ko da ngay gis ni opposition bi am na nu ñu ko jàngatee léegi même bu fekkoonte ne amoon na ñeneen ñuy xalaat loolu ne lii booy di wax nañ ko def tey boo ko defee day mel ni da ngaa complot comprendre maanaam dafay mel ni wax ji du wax joo xamante ni bi rek waxu sànni noonu la comprendre mais wax ji mën na am yeneen i mbir yoo xamante ni bii daal mën na ko signifier mën na nekk leneen mais li am solo mooy réew mi dañu yàgg waxtaan te waxtaan yi amul njariñ euh, parce que loolu du woon ay dialogue dafa am ñoo xam ne bii tey il faut ñu écarter leen ci dialogue yi du munuma tudd seen tur mais ñoom xam nañ ko dafa am ñoo xamante ni bii tey président Macky Sall fekk mu ngi leen di boole ci dialogue yi dialogue yi du baax parce que waruñu nekk ci dialogue amuñu fa place comprendre nga dafa am ay nit ñoo xamante ni bii tey bu fekkente ni da nga bëgg def dialogue bu sérieux ñoom nga war a defal dialogue te moom mii dialogue fi mu toll dafa dem ba nga xamante ni euh, nit ñi joxatuñ ko benn crédibilité bi pour toog ak moom di waxtaan ak moom. parce que dañu gis ni waxtaan yu bari yoo xamante ni bi amal na ko ak ay nit waxtaan yi euh, maanaam dadul mujj fenn et puis nit ña dañuy ñëw jël jalo gi def ko pénc moo xamante ni bi dañ lay tagg di la jay di la waxal yoo xamante ni bi amut sens yaa ngi dégg te bu ngeen ñëwee yéen ñëpp da a war a xam ni ay nit lañ yoo xamante ni bi tey réew mi ngeen di waxtaanee ku ne nawloo moroomam mais da ngay gis ci biir dialogue ñuy dénigrer ay nit ba noppi ne dañoo bëgg réew mi jag te ki ñuy jéem a toroxal gën leen a ëpp doole ci réew mi loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li am seen dialogue bu njëkk ba bi ñu ko defee ne wax naa leen fi ne leen dialogue bi baaxut parce que ki ñu war a dialogueel dialogué ñoo ak moom boobu ki ñu war a dialoguer mooy Ousmane Sonko ñu teg ko fële majorité ñu ne dañ koy écarter jël ay minorité di waxtaan ak ñoom looloo tax mbir mi demut fenn bu ñu waxoon ak moom beneen dialogue du am donc bu ñuy dialoguer dañu war a xool nit ku ne am na lu ko sunu borom sedd ci réew mi nga nangu ko pour soog a mën a dialoguer ak moom ba noppi nag dialogue ba ànd ak respe am na nit ñoo xam ne bii représenté wu ñu lenn waratuñoo toog ci ay dialogue di waxtaan te loolu bu wax dëgg fa yàlla. opposition bi gëwuma nii bon war nañ dem di wax wax di wax ak euh, kii dara parce que dafa am ci ay nit ñoo xamante ni bi man man man moom yor naa sama liste am na ñoo xam ne moom boo leen gisee ci dialogue bi damay xam ne dialogue bi du dialogue déedéet du bu baax am na ñoo xam ne waratu ñoo jege dialogue ay ayca mi ngi noonu ñu jeexalee ko nag ak jàmbal Diagne mi nga xamante ne ni ab audioom la ñu daal di xëy rek gis ci réseaux sociaux yi muy wëndeelu moom nag kàddu yum ci yëkkati jëm ci Pastef ak Cheikh Tidiane Dièye mi nga xamante ne ni allié la bu Ousmane Sonko ñu dem déglu kàddu yam ca wax daal di dellusi. même Cheikh Macky Sall dafi defaat un an jar na ko jar na ko pour ñu xam kan moo kan moo gagné réellement élection yi parce que ki war a gouverner dafa war a nekk lépp jaar ci yoon. lépp jaar ci yoon mais un tricheur ne doit pas nous gouverner du gens on ne doit pas l'accepter on ne doit pas ah da ngay xool pëccaxoo bi am fi mu nekk nii ci conséquence ku nekk di wax ku nekk am ci baat ku nekk am ci xalaat ku nekk di ci wax ku nekk am ci baat ku nekk am ci xalaat ñëpp xam ni Pastef képp ku bokk fa wala nga jege ko waruloo waruloo bokk ci élection yi dama dégg même Cheikh Tidiane Dièye partem la yor mais dafa allié woon Ousmane Sonko ñuy ànd taal ànd giñ alli giñ alli woon ànd taal réew mi rek war naa tax war waruñu ko boole ci élection dañ ko war a éliminer d'office voilà nañ ñu bàyyi ko parce que dañu bokkul Pastef dafa parti boobu pour man ñi nekkoon Yewwi Askan Wi dans son ensemble ñëpp amu ci kenn ko war a bokk ci élection yi parce que ce sont ñoom ñoo taal réew ñi naa nag nañ dem élection xam nañ duñu gañ élection yi de xam nañ ko mais dañoo bëgg a bokk campagne électorale am am am am am am vingt jours yoo xam ni yaa may dégg ils vont faire le tour du Sénégal raconter des bêtises et des histoires di tarari de midi à quatorze heures di wax ay fen yoo xam ne bu ci gën a garaaw nga ni bii luy taal réew lañ bëgg luy taal réew lañ bëgg parce que c' est une belle occasion de de de de xam nga de parler campagne électorale c' est une belle occasion de parler tous ces vingt candidats là yi bëgg a dem demuñu pour gagner deux ou trois ñoo ci dem pour que ñi des ñëpp dañu am c'est une belle occasion pour ñoom pour ñu am pour ñu am des temps taxaw di tar rek wax c'est pour leur dernier c'est pas pour leur aujourd'hui xalaatuñu sax gañe seen xel nekku ci dem campagne électorale moo tax ñu nañ dem élection on va leur coudre la bouche nag tous ces gens ay Aïcha mi ngi noonu ji Alaaji Madiambal Diagne waxati na xëy nañ nag gis ko ci réseaux sociaux yi ojo bi ñii ne dafa fuité ñii ne fuitéwul moom nag nee na li taal réew mi bokk na ci parti bi di Pastef euh, Cheikh Tidiane Dièye mi ñuy jàpp ni mouvement la yor nee na élection yi daal am na ñoo xamante ni nii li tax ñu puus ko waruñu cee war a mën a bokk. waaye bëgg-bëggam rek lay wax de. bëgg-bëgg moom bokkut ak loi. Hmm, mën naa wax moom ay bëgg-bëggam wax li intérêt ak euh, njariñam boo ko déggee mu wax nga yëg ni nit koo xamante ni euh, du réew mee ko yitteel mais boppam a ko yitteel hmm. waaw mbiri boppam lay wax waaw bëgg-bëggam nag euh, defe naa ni booy bëgg nit ki ñu tëj ko bu dafa bëggoon ñu tas ñu tas hmm. mu bëgg ñu tëj ñu tëj ko mu bëgg ñu tëj leneen ñu tëj mu bëgg ñu amal élection ñu ne aywa ñu ngay amal élection mu wër réew mi yëpp ne kenn ki ñii ñëpp kenn du bokk mm. ñu ñëw ñoo ñu bokk kon sunu borom a ngi koy wan ne ko say bëgg-bëgg ak lii am man maa yorob dogal mm. fi mu toll nii nag mi ngi gisaat leneen luy ñëw li ñuy annoncé amnistie def lii ak def laa maanaam moom dañuy dafa mel ni fi mu toll nii rek euh, asamaan say bëgg a daanu ci kawam. moo tax nii muy waxee mënut a waxee nu dut nii ma jambal nag dafa war a xam ni kenn la rek ci réew mi waaye du réew mi moom moom nag dafa jàpp ni moom mooy réew loolu mooy ay erreur mm-hmm. waaw na yëg ni daal lii di ñëw di riir wutal si ko mm-hmm. gisu ko tegu ci bëtam. bu yeboo mu biir ko ni dragon la te waa ji waxoon na njaay dragon <laughs> gisuma ko teguma ko bët gisuma ko teguma ko bët <laughs> waa li muy tuumal waa Pastef waa li muy tuumal waa Pastef c'est pas la première fois loolu moom waa Pastef tàmm nañ ko mhm. je pense que nii euh, soxla wut a kii soxla wuta a wax du dëgg mhm. buñ demee ba ne ñi doon taal réew mi tey journal luñ bëgg bind ne moom ñoom la président Macky Sall bëgg amnistie maanaam diggante deux mille vingt et ak nëgëni mhm. ñu ne loolu yëpp lu ci nit defoon kon moom dafa mel ni moom looloo ay bëgg-bëggam ak loolu moom waroon nañ. waaw mm-hmm. na continuer rek man nag moom ma ma jàmbal moom saa yu xëy di mer rek réew mi moom seen xol di sedd. mais wax ne leer na leen ni duñ gañe nag. waaw non moom lu xamul kuy gañe ku du gañe bu xamoon kuy gañe day rangé wu ji ci moom loolu moom xamu ci dara. Mm. ma jàmbal daal ma wax la leen. réew mi moom saa yu ko déggee mu mer di waxee xol nii réew mi moom seen xol sedd na mm-hmm. waaw. waaw nit ñi moom seen xol sedd na. waaw nañ ko ñaanal rek suñu borom may ko xolu muñ. amoon na ay jamono moom moo mewoon vent. waaw waaw léegi nag bu dee vent bi day wëndeelu suñu boroom def ñam doon merloo tàmbalee moome vent na am xolu muñ rek en tout cas daal ay bëgg bëgg moom du moom mooy bëgg-bëgg réew mi waaw. Mm. na xam nag réew mi moomee vent ma yebbal ñëw àppoo vent. <laughs> ni temps lañ ñàkk ñu à pouvoir. Mbadou ayca mi ngi euh, noonu ñu bàyyi la nga. di ko ah. di fàttali gars yi tamit fii ci côté kii bi dafa naa am na am suma mbokk lébu yi am na ay terrain yu mu kii woon foofu xam naa yooyu yëpp. gars après dinañ ko lijjanti dinañ ko lijjanti. waaw ah, nañ xam ni nag. Ah. gars yi moom itam waa Ngor ak yooyu yëpp nañu ànd ak dal. te yëg ni Ngor Ngor fa xam yooyu yëpp Madiambal Euh, kii bu mu kii woon fi après yooyu yëpp euh, gars yi laaxat ci ko rek incha allah yaa ak tamit ka nekkoon fële la mu doon euh, wax yooyu yëpp il faut il faut lijjanti ko mhm. waaw mhm. xam naa li ñu war a lijjanti ci ay mbiram nag dafa bari waaw moo tax moom fi mu toll nii moom yëf yi moom dara xëy na ko ci ne waaw parce que pareen saa yi mhm. am na koo xamante ni kii li muy yaakaar ni moom lay perte loolu lay commencé jooy d'accord voilà ma jigéen ñu joxante dig daje incha allah beneen altine ci gàttalu borom ay ca jërëjëf euh, Mbengue ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñu ñu doon suivre di commenter woy leen nag di abone ci suñu ay plateforme euh, di gërëm ñëpp sant ñëpp jaajëfal itam Modou Diouf Abdou topp ak Abdoulaye Diallo jox leen dig daje beneen altine ci l'émission des émissions